waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen remercier ci honneur bi ngeen ma may ma participer ci euh, ci émission bi di nuyu tamit seen président groupe bi nga xam ni euh, c'est un frère et un modèle bi nga xam ni euh, toujours daf ñuy inspirer en l'occurrence monsieur Amath Diouf question bu doy waar <laughs> citoyenne sénégalaise militante de gauche militante féministe militante pour la justice sociale je pense que loolu laa mën a wax Euh, tey je suis adjointe au maire au niveau de la ville de Dakar ak euh, Sicap Liberté di jéem a xool naka la ñuy euh, poser ñun suñu suñu pierre pour defar dëkk bi defar li nga xam ni mooy suñu koñ département bi ba yegg au niveau national luñ ci mën a indi rek. Aïda ngi juddoo Dakar précisément clinique ra bi juddoo Derklé màggee Sicap Liberté. donc moo nekk sama sama ba léegi falaa falaa falaa nekk donc daal Dakar laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo waaw parce que soppi bi tout le temps dañ ma koy laaj et euh, ça n'a rien à voir ak bi ma juddoo dafa fekk mu nekk benn année bu xawoon tar ci Sénégal sam papa nag ma sa nekk un militant euh, de gauche euh, militant du PIT bi nga xam ni mooy parti bi nga bi ma njëkkee embrasser lan mooy politique donc mu judd mu tuddee ma Aïda Soppiña entre temps nag euh, ñu dindi soppi bi ci tour bi mais ñi nga xam ne dañ ma xam depuis ma nekk xale ñëpp Aïda Soppi lañ may woowee yàlla def nag bi mu wàññeeku en deux mille dix-neuf ma indiwaat tour bi parce que moom soppi la ma mës a woowee bi sax daan ci jaar soppi soppi donc foofu la Aïda Soppi bi jóge qui n'a rien à avec le soppi du PDS parce que je pense que le PIT avait un journal Euh, bu tuddoon àndu soppi donc euh, lui il a toujours milité nekk un militant de première heure à l'université euh, au niveau de l'UJUDAN il était le responsable des jeunes du PIT ba bi mu yegg au niveau du comité central donc tour bi daal soppi bi ci moom la jógee moom la moom la mës gëm qu'il faut un changement mu tuddee ma soppi bi et nous essayons un peu bëgg-bëggam ak yéeneem peut-être ñu ñu ñu ñu dëggal ko donc foofu la soppi bi primaire maa ngi ko defee Saldia euh, defee sama collège Ousmane Socé Diop et ça fait partie des années pour moi yi gën a neex en termes de jàng parce que c'était euh, lycée boo xam ne jusqu'à présent on a on a maintenu les liens Socé Diop après ñu dem Kennedy euh, Jean Lafontaine après université Cheikh Anta Diop et là maa ngi am sama master en développement territorial waaw disons que xale mën naa ne j'étais un peu pourri parce que euh, ak sama papa euh, sama yaay peut-être moo daan jéem et je la remercie pour ça doon mettil mais je suis un enfant très pourri lu ma ne woon nii pa bi pa bi jéem ko régler euh, mais ma màgg aussi timide beneen bi mooy c'est pratiquement à l'âge de seize ans la la commencé di militer Donc, toutes mes activités euh, extrascolaires, c'était les rassemblements, les réunions politiques, etc. Donc, je dois dire que plus de la moitié de ma vie, euh, c'est un engagement politique. Donc, Wakumani, j'ai été terrible, mais ça m'a aussi aidé à me canaliser, à savoir qu'il y a des priorités. Euh, ci nii la ñu war a tegoo lii mooy priorité que di dem ay soirée etc. Donc, je peux dire Euh, que j'ai pas eu benn parcours bu bu bu terrible entre guillemets je ne pense pas l'avoir eu bon parce que ñeneen ñi peut-être ñoo koy jugé quand on était petit en fait sama grand-mère maternelle euh, chaque week-end c'était obligatoire que tous ces petits enfants dañ daan regroupé au HLM Grand Yoff et ça man en tant que fille bu nekkoon dans une famille pas du tout nombreuse ça m'a permis de de nouer des liens permettre nañu tamit que ñu xam ni euh, lan mooy la la générosité lan mooy bokk parce que je me rappelle sama maam su ma amoon yére bu bees su ma ko indee euh, sama cousine yi sœur yi bu dee ñoom ñoo ko bëgg sol ñoom ñoo doon prioritaire par rapport ak man foofu tamit jàngal nañu ñu bañ a bañ lekk amoon nañ benn oncle boo xam ni man bëgguma woon ñebbe mais bu ñu toggoon ceebu ñebbe nii teg euh, kii bi seppi ko Bon, après, ils nous forçaient en réalité à le manger. Et je pense que c'était une éducation de vie euh, qui nous a permis aujourd'hui d'être solidaire euh, bi ñu permettre tamit ñu xam ni malgré que peut-être bokkuñu papa ak yaay mais ñoo bokk famille ça quand même ça et bu ñu demee ba màgg ci la ñuy comprendre que yenn rivalité yi am ci yeneen famille yi ñun euh, yàlla ba léegi mi ñu ciy suturaal donc loolu euh, boo demee ba jëm mag ngay xam en fait lan moo doon sensu cette éducation là célibataire <laughs> bon peut-être que jotagul et euh, que je suis tellement engagée euh, sur euh, le terrain que peut-être loolu nekkul sama priorité parce que moi je me dis que lu jot yomb et que aujourd'hui euh, en tant que fille li sama priorité mooy d'abord de rendre fiers mes parents de faire en sorte que li ñu def ci man ma mën leen ko incha allah delloo maintenant nag bu yàlla euh, décidé ni que Aïda Niang sera une femme mariée elle dina ko nekk waaye Sénégal dafa bëri ay ragal aussi <laughs> dès qu'on dit qu'on est féministe on est très euh, dañuy euh, dañuy catégoriser peut-être que ça joue Mais ça ne nous empêche pas d'assumer notre statut et de dire que malgré qu'on soit célibataire ou marié, les gains importants, moins quel apport nous avons pour la société et qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer les choses. Tout le temps, tout le temps, je peux dire, bon, demain, c'est premier sujet de conversation, mais que c'est une pression supplémentaire. Mais damay dégg ñenn ñi ñu ne euh, balaa ngay sëy sa pression mooy lu tax amoo jëkkër boo xasee ba am jëkkër nit ñi teg la pression lu tax amoo doom boo xasee ba am benn lu tax amoo ñaar et cetera donc Sénégal en fait la femme vit une pression psychologique perpétuelle maintenant coow li mooy naka lañ koy euh, assu naka lañ koy euh, ñu koy waxee faire face et comme je le dis euh, l'homme propose je dispose moi euh, du question ni dañu yàkkamti wala dañu yëg suñu bopp wala leneen mais je me dis en réalité am na ñu bëri ñoo xam ne aussi elles ne sont ni féministes ni engagées te elles sont toujours célibataires et elles ont plus de cinquante ans donc pour moi loolu du du euh, du li ko justifier li ko justifier mooy comme on le dit c'est yàlla bindu na ko ci aras bés bu jotee mu ñëw mais que ñu bañ ci focaliser wu euh, comme tey bëgg naa am milliard awma milliard bëgg naa riche riche guma comme je le dis rek lu yàlla euh, dina am en temps voulu donc c'est une pression perpétuelle booy dégg mais je réponds toujours par le sourire et, et on passe li tax ma engagé wu mooy que dans la société sénégalaise dañuy gis ne y a beaucoup de violence faite aux femmes dañuy gis ni même en termes de jàng góor ñi la ñuy privilégié dans les familles que les femmes et je considère que góor ak jigéen euh, ci fànn boobu ñoo yem donc nañ leen joxandoo même chance les violences faites aux femmes dañ ko war a combattre les stigmatisations dañ leen war a combattre et surtout les violences psychologiques maintenant man je pars du postulat que chacun est libre képp koo xam ne tu es ba am dix-huit ans majeur vingt et un ans euh, loolu choix boo def ce de vie la mais qu'on puisse permettre aux femmes de faire des choix et de les assumer faire des choix et de les assumer aussi damay wax souvent que tout contexte doit être con tout concept doit être contextualisé mooy ñun ni ñu koy dundee bokkul ak peut-être yi ñeneen ñi ci seen ay dëkk ni ñu koy dundee moo tax mooy je de contexte sénégalais qui ne nous empêche pas et boo xam ne dafa mës a am des femmes battantes je vous Waalo je vous rappelle Aline Sitoé Diatta Et même plus récemment, man, euh, j'ai vu ma grand-mère euh, qui était, euh, euh, qui travaillait et qui pour moi est un modèle. J'ai vu ma mère euh, qui a fait des sacrifices en tant que femme, qui pour moi aussi est un modèle. Donc, mën nañu bañ a xool fu sori, mais faisons en sorte juste que euh, les chances soient égales entre les hommes et les femmes et qu'on ne nous, euh, qu'on ne nous empêche pas de dire notre idée que ñu bañ ñu empêcher ñu am ay ambition et que ñu bañ xalaat ni on a qu'un seul rôle c'est de procréer et d'être à la maison de cuisiner et de donner aux, aux hommes à manger man je considère que bu ñu commencer ba dépasser cette cette vision des choses rek Sénégal dina mën a tegu et que ñu permettre ku ci nekk mu def ses choix de vie et de l'assumer jusqu'au bout li taxoon ma bokk ci mouvement 23 juin bi mooy d'abord j'étais la responsable des jeunes du PIT ma teel euh, depuis 2006 ñu doon euh, lutter avec le euh, ànd Siggil Sénégal Front Siggil Sénégal après Benno Siggil Sénégal et que ñu nekkoon un un mouvement de jeunes très très très soudé boo xamoon ni au au au Euh, malgré divergences politiques yi mag yi amoon ñun à notre niveau amuñu ko woon et on se battait pour en fait le renforcement de la démocratie et que en 2011 Euh, on était à un niveau boo xam ni euh, quand je me rappelle de ça des fois même j'ai peur des risques yi ñu doon jël ak li ñu doon def parce que pour nous il fallait un changement radical et que euh, le président Wade warul woon manquer de respect aux Sénégalais en disant sama doom a gën seen doom et en faisant en sorte que mu am une dévolution monarchique donc ñu ñu xeex et euh, c'était avec avec les jeunes de Y'en a marre c'était avec des jeunes de la société civile c'était même avec des jeunes yoo xam ni kenn xamu leen woon et c'était des rassemblements qui da doon pousser euh, da la doon conforter sur le fait que on avait fait le bon choix donc c'était des moments qui pour moi de beaux moments de ma vie parce qu'à un moment donné on avait même un slogan qui disait euh, bu bu dee jotee ku dund doo góor donc de ce point de vue en tant que jeune femme où j'étais la seule responsable d'une jeunesse euh, pas féminine, mais d'une jeunesse mixte. Il fallait le terrain, il fallait montrer qu'on a les on a les euh, en étant des forces de proposition et être partout euh, en même temps. Donc 23 juin euh, et après le 23 le 31 janvier, quand le Conseil constitutionnel a validé la candidature, la bataille qu'il y a eu. Donc, yo, yo pour moi, c'est de, de bons souvenirs. Malheureusement, il euh, y a ceux qui sortent qu'on connaît, mais il y a énormément d'anonymes. Et euh, je rappelle, et tout le temps je le dis, il y a ma sœur Ngoné Ndiaye qui, euh, moom bu ñu daan dem place de l'indépendance, on était les rares jeunes femmes à, à être au niveau de la place de l'indépendance di jël lacrymogène yi dóor yeeg yooyu yëpp on était ensemble peut-être tey kenn xamu ko. et énormément d'autres gens yoo xam ne ils se sont donnés Mamadou Diop il était inconnu mais il a sacrifié sa vie en réalité pour la démocratie et pour euh, la survie de la nation moo tax tey bu ñu ñëwaatee en 2023 c'est comme si c'était une répétition parce que li ñu xeexoon waruñu ko fàtte et quel que soit pour moi les amitiés que nous euh, le respect que nous pouvons de l'autre bord des principes qui sont non donc foofu lañu toll parce que 2011 des fois quand j'entends certains discours c'est comme si nous étions une jeunesse bu ñu embarqué ci loo xam ne xamuñu ko et que tey dafa mel nit ñi dañoo yeewu bëgguñu wax ni un troisième mandat nit ñu dañ ko war a accepter et ça euh, une question de principe et que les Sénégalais doivent savoir est-ce que dañuy nangu euh, ñu leen di yëpp wala dañuy nangu en réalité euh, li nga xam ne ay acquis la nit ñi bañ ko bafoué j'ai une fois ci benn manifestation benn policier de daf ma buux et euh, boobu je pense que j'étais euh, je me suis retournée je l'ai giflé et euh, malheureusement dañ ma embarqué dugal ma ci benn oto dóor ma dóor yoo xam ne à la limite man je pensais que <laughs> jour boobu ça allait être compliqué et bizarrement c'était le camarade Bamba Fall qui est aujourd'hui le maire la Médina moo ñëwoon pour atte donc moment boobu Euh, c'était un moment très compliqué bi ñu ñëwee di xeex au niveau de la police de Dieuppeul avec les Abdourahmane Sow les Fanta Diallo euh, tamit c'était c'était c'était pareil et euh, benn instant doo xam ndax tu dois continuer c'est-à-dire que tes parents te disent du lii moo tax ñu ne la nga militer tu es une jeune femme di dem et cetera mais beneen bi yaa ngi xalaat ni que tu avais tes camarades qui étaient en prison tu avais des camarades yoo xam ni euh, tout le temps ñu ngi sur le terrain est-ce que yow da nga war a bàyyi bàyyi leen ñoom ñuy xeex après c'est toi qui vas prendre les fleurs wala da nga war a en réalité teg tout ce qui est peur de côté et dem sur le terrain moo tax c'est des souvenirs qui pour moi Euh, comme je le dis day rester éternellement parce que c'est des moments de doute parce que des fois il y a eu des moments de doute Des fois, il y a eu des moments où euh, on a eu même des propositions yu nit mënul comprendre et doute yooyu bu ñëwee il y avait que deux choix soit tu dis euh, je pense à l'instant présent, présent je prends l'argent ma dem def ci lu ma neex wala je pense aux générations futures ak est-ce que góor la wala wala nit ku ñu mën a jënd la et le choix donc ça c'est des moments qui pour moi euh, buñ ko xalaatee on est fier de ce que nous avons fait mais plus tôt du groupe qui nous a permis de faire ces choix et de les assumer. mënoo sax comprendre temps yële lay dégg ne am na ñoo xam ne peut-être ils étaient partis ils avaient mangé après ils ont continué la lutte mais nous de notre côté il était inquestion en réalité de d'accepter une quelconque euh, nu ñu koy waxeete euh, discussion avec les gens du PDS. parce que c'était même avant la mort de de Mamadou Diop fait que comme ni ñu koy waxee y un poème de Victor Hugo qui ku koy déterminer c'est-à-dire des fois di nga nekk ci benn moment boo xam ni dootul yow kese et am na ñu ko comprendre am na ñoo xam ni peut-être c'est des euh, politiciens professionnels qui n'arrivent pas à comprendre lan mooy l'engagement et la conviction parce que boo gisee ni que ñëpp parce que da xëy doo xam ndax di nga ñibbi da ngay xëy des fois je me rappelle la dernière fois maa ngi wax sama yaay war naa la balu àq dama la daan wax ni que fii la ñu am réunion alors qu'on était sur le terrain war a taal war a jàkkaarloo policiers et cetera et tu ne savais pas parce que c'est le niveau de violence qu'il y avait euh, ça toutes ces propositions euh, la question mooy euh, est-ce que on a un prix ou est-ce que est opportuniste ou l'engagement que nous faisons, c'est pour avoir quelque chose ou pour changer. Si c'est pour avoir quelque chose et que lors le pourria ou la café, bon, le choix est vite fait. Mais si c'est réellement pour changer les choses, qu'on soit reconnu ou qu'on ne soit pas reconnu, mbir mi mooy nañ ci dem ba jeex et aller jusqu'au bout. Donc c'est pas des regrets. mais euh, nuñ koy waxte c'est des souvenirs qui nous renforcent dans le fait que jusqu'à présent dix ans douze ans après waruñu tegg suñu tànk enseignement Sourcy Djamil je dois dire que on a une on a ou avait une relation très particulière et euh, ba ba ba aujourd'hui à mon niveau j'ai une affection pour l'homme qui s'est toujours battu pour l'homme qui malgré euh, qu'il est un chef religieux a su à des moments donnés poser son manteau de chef religieux et se battre pour le Sénégal je rappelle lettre bi mu defoon pour les assises nationales ci laa koy doog a dégg et sëñ Mansour je l'ai connu lors du décès de tonton Sémou Pathé Gueye quand le PIT devait en réalité rendre hommage à tonton Sémou et foofu laa ko côtoyé et euh, on a toujours eu une relation particulière malgré que nag Euh, bi ñu koy côtoyer ma nekk ci partem ñu bëri ñëw nañu Aïda amul worma Aïda rebelle et cetera et il m'a toujours défendu donc de ce point de vue man je ne lui dois que reconnaissance euh, je ne lui dois qu'affection et euh, tout en espérant que les liens seront encore euh, nu ñu koy waxeete euh, qu'on aura l'occasion de se parler lu nit mën a xalaat c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour le Sénégal en faisant aussi des, des, des sacrifices, moi, c'est ce que je retiens de, de cette mention. Je ne dirais pas séparation. Peut-être, euh, je parlerai même pas du parti, je parle de cette mention. Peut-être une incompréhension. Mais à un moment donné, il fallait que Kouchinek ne une position et que nous ne assumer. C'était euh, lors des élections législatives où euh, le Bezouniak n'a pas été euh, parce que de comme on le dit, du rombi où euh, il a sacrifié tellement de choses en restant dans l'opposition et où la réponse qu'on lui a donnée, euh, pour moi, à mon humble avis, était une position de mépris. Et il a eu à réagir en tant qu'homme politique parce que tamit nee nañu euh, ku lamb yaa tey et de ce point de vue boo ñëwee nga nekk quelqu'un qui a une base tu es parti à des élections euh, nga def li nga def nga ñëw ñu considérer le même moi que les autres qui ne sont jamais partis à des élections il fallait une réaction Il a dit, euh, ils ont dit, parce que c'était une réunion qu'il euh, soutenait pour les législatives, euh, la coalition Benno. Moi, j'avoue que ça a été les moments les plus difficiles qui sont mon militantisme politique. Euh, parce que euh, Kohamni, en réalité, il a toujours été présent. Lui dire non, euh, Yomboul. Mais la question qui s'était posée, moi, est-ce que je devais être constante ou est-ce que je devais de, de parti Et je me sentais pas dans la logique du FUNIDEM de soutenir la coalition Benno Bokyaka pour 2022. Et je l'ai à haute et intelligible voix. Parce que pour moi, Tibir, l'ingay nangu, l'ingay bagné, l'ingay bagné. Et que nous ne sommes pas obligés d'être de moi une est-ce que ça fait de moi une militante non disciplinée Parce que souvent, des gens m'ont sorti l'argument que quand on est militant et qu'il y a une décision de parti, quel que soit l'avis qu'on doit avoir, on doit suivre la décision de ce parti-là. Mais c'était un moment aussi qui, pour moi, il fallait décider. Et j'ai décidé, en mon âme et conscience, de ne pas soutenir la coalition Benno Bokeyaka. Sauf cette incompréhension amée. et j'espère qu'on aura le temps de discuter et de lever tous les équivoques. Parce que ma position que j'ai eue en disant que je ne le soutiens pas, c'est une position que j'assume et que j'assumerai toujours et que si c'était à refaire, j'aurais pris en réalité la, la même décision. Et cela n'enlève à rien l'affection que j'ai pour Seigneur Mansour. Euh, c'est quelqu'un euh, quand même qui, a, qui, qui, qui, euh, qui priorise le Sénégal. et loolu du du loo xam ni mën na mën na dañ euh, ndax def naa pas euh, pour dire vrai c'est c'est assez compliqué à mon niveau parce que xawma quel euh, ñu koy waxeete lan laa fay fekk mais comme on le dit moi je parle du postulat que Sénégal dañoo am war ma ci mag et que dans toute chose le droit d'aînesse ça existe et que le pas je le ferai peut-être aussi il me manque un peu de je dirais pas de courage mais euh, ni de possibilité. Peut-être même c'est courage le mot exact pour aller vers lui, mais je le ferai en temps opportun quand j'aurai euh, été euh, assez de courage, c'est le mot exact pour le faire, et que Inch'Allah dina ko def. Mais lenn moo dul dañ mooy à chaque fois euh, que ma wax ko magnifier maa ngi koy def. et que li ma mën a reconnaître rek mooy que ce fut en fait des années de militantisme que je ne regrette pas et j'ai beaucoup appris de l'homme oui c'est clair loolu xam nga 13 ans c'est pas deux jours et euh, comme je l'ai dit Serigne Mansour c'est c'est d'abord un père euh, man euh, j'ai j'ai essayé d'apprendre d'être talibé euh, je l'ai pas été euh, mais je dis que c'est d'abord un père où il y a une affection une affection mooy affection mooy loo xam ni ça ne dépend pas des positions mooy loo xam ni nit mënu ko comme affection yow bi nga am sa yaay wala nga am sa papa wala nga am sa frère c'est une chose boo xam ni quelle que soit la distance du dañ et y a des souvenirs qui sont là parce que je me souviens que y a eu des gens yoo xam ni euh, leur but ultime c'était de dire euh, Aïda Aïda Aïda Aïda Aïda Aïda et il a toujours répondu Aïda Mahakotan et je sais ce qu'elle peut faire en, euh, sur le plan politique. Et ça, c'est une reconnaissance éternelle que j'aurai pour lui. En plus, il m'a permis d'apprendre. Dans le Bozounia, quand il s'est agi d'aller euh, d'aller négocier, man maa daan dem malgré mon jeune âge am na ñoo xam ne meroon na ci mais maa doon dem quand il s'est agi de négocier pour avoir le département de Pikine en tant que candidat man maa dem quand il s'est agi d'aller déposer les candidats man maa dem ba ci en deux mille dix neuf ci conseil constitutionnel man maa yóbbu parrainage maa yóbbu et j'étais la seule femme euh, et jeune bu yeggoon à ce niveau là donc il m'a permis d'acquérir énormément énormément d'expérience et de ce point de vue euh, les souvenirs euh, ne peuvent pas d'un bon jour dem mais euh, dans la vie, on prend des décisions et on les assume. Et aujourd'hui, je n'ai pas de regret par rapport à ma décision. Le seul regret que j'ai, moi, que cela ait pu en réalité créer cette distance. Élection locale, euh, au niveau du département, j'étais deuxième sur la liste. Euh, normalement, je pense que Chow adjoint au maire, Sivron Mais moi, j'ai une, euh, euh, j'ai une formation boo xam ne li ñu njëkkee jàngal mooy le jeu ne l'emporte jamais sur le nous un deuxièmement quand il s'agit de se battre da ngay xeex ba ñëpp xam ni xeex nga boo paree nga liggéey parce que liggéey bi mooy prouver ñi def le choix ndax ils ont bien choisi ou pas et que aujourd'hui euh, moi je suis très ravie de voir que le maire de la ville de Dakar quelles que soient aujourd'hui les critiques que les gens lui font Et je tiens à préciser que le maire, euh, on a une relation euh, de, de, de, de, frères et de sœurs, mais une relation aussi de collègues. Et je vois les résultats. Parce que quand même, quand on ni djebolu tu ben non peut-être du maire de la ville de Dakar ngay djebolu. Mais da ngay wax lu leer. Je vois un homme qui est en train de faire des réalisations. Je vois quelqu'un bo xamni chaque jour qu'il se lève et qu'il vient à la ville de Dakar, c'est de dire qu'est-ce qu'on a permis, promis aux Dakarois et qu'est-ce qu'on peut faire pour que sur le plan de leur cadre de vie, nous améliorions sur le plan de la sécurité, qu'est-ce qu'on peut amener, sur le plan même de ñi nga xam ni ils ont des besoins seen loxo euh, jotul seen ginnaaw ñu mën leen jàppale et les réalisations qu'on avait promis donc ci loolu ñu am ci njortu bu rafet maintenant comme je le dis c'est une expérience de vie moi je boo xam ni li may gën a privilégié dans la vie c'est de ne pas être pressé un deuxièmement c'est d'apprendre parce que boo jàngee rek bu ëllëgee ci ngay mën a tari et troisièmement c'est d'être honnête avec les gens yi nga xam ni ñoom ñoo ñu wóolu parce que c'est bien beau euh, de critiquer les dirigeants mais bu ñu demee yow ba dénk la tamit fais en sorte que critique yi nga doon def ñeneen ñu bañ la ko def et nous sommes sur cette logique là et de nous rendre compte que aussi je suis adjointe dans une commune, adjointe au niveau de la ville de Dakar, que c'est deux mondes différents. Que la ville, c'est un petit État dans un État et qui peut aider un peu les Dakarois à améliorer leur, euh, cadre de vie. Même si en termes de budget, c'est pas comme euh, budget euh, national national, mais avec les réalisations que nous ferons, Inch'Allah, je pense que les Dakarois vont s'en rendre compte. Au niveau des SICAP aussi, malgré que nous n'avons pas un budget énorme, nous sommes en train de nous battre pour faire en sorte que SICAP yi nga xam ne ils se sont mobilisés en masse ñu mën a en réalité euh, gis les réalisations maintenant il faudrait qu'on éclaire la réalisation c'est pas les aides que l'on donne euh, la tabaski la korité wala Pâques wala Noël les réalisations mooy loo xam ne boo génnee sa sa sa buntu ko nga gis ko mooy loo xam ni en réalité ñëpp a koy bokkandoo et je pense que nous sommes en train euh, de travailler dans ce sens malgré que yombul ñi ngi def suñu kemtalaay kattan en réalité euh, pour faire des réalisations maintenant ce que je dis mooy euh, man si may ma gëm mooy les divergences politiques waruñu influencer sur en réalité déroulé bi nga xam ne moom la institution yi di am les divergences qu'un opposant peut avoir avec le pouvoir loolu nañ ko xeexee ci cadre politique mais bu mu influer ci li nga xam ni mooy doon ci liggéeyu nit ñi et tant que nous les Sénégalais comprendre ñu loolu rek day am day day am blocage. je dois dire que sur la parité c'est euh, kii la ni koy waxeetee euh, avancement bu rëy la parce que aujourd'hui dans les mairies. euh, au niveau de l'Assemblée, etc. La parité, elle est, elle est de mise. Mais pour moi, cette réflexion, c'est moins la place des femmes dans les structures politiques. Parce que balaa ngay wax assemblée balaa ngay wax mairie est-ce que ñu ngi ci secrétariat yi est-ce que ñu ngi ci bureau politique yi est-ce que ñu ngi ci est-ce que elles sont assez représentées ci comité central yi. peut-être les noms diffèrent par rapport aux, aux partis politiques mais loolu c'est la première bataille que nous devons mener deuxième bataille bi ñu war a mener mooy euh, nu ñuy defee ba ba faire en sorte que les femmes aient autant autant autant autant de visibilité que les hommes parce que malheureusement dans les émissions télé da ngay ñëw toog H24 pour nga gis ci une femme par exemple y des émissions où tu as hommes benn jigéen nga fay gis wala boo gisee benn jigéen bi benn yoon par trois mois la wala benn yoon par six mois la donc il faut que les médias aussi aident les femmes politiques à être plus visibles il faudrait qu'on puisse faire euh, un travail au sein des partis politiques pour que les femmes ñu am seen seen seen seen euh, seen place ak seen position beneen bi se sur au niveau des nominations dans la plupart des directions yi nga xam ne ñoo gën a rey y pas de femmes donc am na loo xam ni acquis la mais am na loo xam ni pour man dañ ko dañ ko dañ ko war a gën a xeex gën ci taxaw e loolu je pense sur le long terme parce que une euh, un changement ne se fait pas euh, du tic au tac mais je pense que ak ni muy demee nii ak parité bi ren on a beaucoup d'adjointes au maire femme bu ñu gënee xeex gën a taxaw incha allah li ñu bëgg dinañ ko am. li tax may yaakaar ni que ñoo ngi ci yoon bu baax bi. mooy sauf euh, ay affaire troisième mandat loolu moom nekk ci yoon bu baax bi mais li tax ma xalaat ni que ñi ngi mën nañ nekk ci yoon bu baax bi mooy on a un peuple euh, boo xam ni à tout instant euh, kenn mënu ko domestiquer kenn munu ko def esclavage peuple la boo xam ni kenn mënu ko jënd donc de ce point de vue ñoom ñooy doon les vigies ñi nga xam ni ñooy permettre que Euh, boo naree jàdd yoon ñoo lay ñoo recadrer donc ñu ngi ñu ngi un peu ci yoon bu baax bi maintenant ce qui fait un peu peur c'est que y a un discours qui est de plus en plus conservateur y a un discours qui n'a rien à voir avec nos réalités euh, sénégalaises et loolu pour man dañ ci dañ ci war a en réalité bàyyi xel ñu xool fan la ñu jëm et un peu pousser la citoyenneté travailler sur la citoyenneté, travailler sur l'engagement, euh, travailler de faire en sorte que les jeunes puissent s'y retrouver. Parce que loolu nag mooy bombe à retardement bi parce qu'on voit qu'il y énormément de jeunes yoo xam ne am nañ seen ay diplômes amuñu euh, liggéey boo xam ne mën na leen jël ñoom sax en charge waxuma la jël yéene yi ñuy def donc faire en sorte que euh, que la lutte des classes soit une réalité que c'est pas parce que je suis fils de tel ou fille de tel que ma war a am privilège au détriment du fils ou de la fille de Massamba wala de Mademba yooyu yëpp buñ ko tegee je pense que Sénégal mën nañ dem de côté euh, mën nañ dem euh, à l'avant et aussi euh, dans toute chose mettre la patrie avant le parti ça c'est un des principes boo xam ni buñ ko jàngalee nit ñi rek dinañ avancé aujourd'hui une opposition elle est faite pour s'opposer Une opposition, elle est faite pour faire des propositions et pour trouver des solutions. Euh, maintenant, les profils nag au niveau de l'opposition euh, bëri nañ man je ne ferai pas dans le dans le tout est tout est tout est bien ici et tout est mauvais là-bas non mais je dis que ni ma gisee ñuy taxaw s'ils mettent en place une structure bu taxaw s'ils nous en fait euh, s'ils nous éclairent par rapport à leur à leur idéologie, même si certains pensent que l'idéologie euh, n'existe pas. Moi, je pense que l'idéologie, elle est nécessaire pour que nous sachions nit ki s'il de droite, s'il de gauche, s'il est centriste, fan la ñuy jëmee. beneen bi sur des questions essentielles ñu leeralul ñu ci ban politique lañ ciy am loolu bu amee rek euh, par rapport aux différents candidats je pense que peut-être qu'il y aura un profil boo xam ni mën na génn et mën na répondre aux attentes des ni ñu koy waxee des Sénégalais parce que la difficulté que nous avons toujours eue c'est que le Sénégalais a toujours voté contre la plupart on a voté contre Diouf Wade est venu on a voté contre Wade euh, le président Macky Sall est venu aujourd'hui on va voter contre pour keneen ñoom mais je pense que aujourd'hui l'opposition euh, ou bien les candidats ou candidates doivent en réalité nous donner un programme nous rassurer et je pense que de ce point de vue un ou une dina génn et dina mën a en réalité diriger le Sénégal et j'en suis convaincu parce que euh, gisuma lu ko war a mën a tere je considère que le Sénégal dañu am benn avancée politique et euh, nekkuñu dans les années euh, mille huit cent le Sénégalais dañu ne tout président deux bu deux mandats yi jotee ñu may à d'autres Sénégalais aussi de euh, nu ñu koy waxee tey ñu wane lan la ñu mën pour changer Sénégal maintenant nit ki bu ko neexee mu dem ñëwaat loolu c'est un autre débat mais deux mandats consécutifs moom loolu je pense que depuis le 23 juin bi ñu koy xeex contre Wade ci la ñu en réalité euh, régler question boobu et moi je suis convaincu que euh, il n'y aura pas de troisième mandat parce que le Sénégalais est assez mature pour savoir que troisième mandat fi mu ñu nar a jëmee ci man euh, neexul et que cette question avait été déjà réglée en 2011 et en 2012 donc pour moi c'est un débat qu'on vous posait comme ça mais que ce débat a été déjà réglé. benn kilifa mu ne nit soo waxagul sang nga mu ne mais boo xasee boo wax jaam ma ni ko lan mooy loolu mu ne parce que boo xasee ba joxe sa sa kàddu sa jaamu kàddu boobu nga parce que par A par B da nga ko war a en réalité euh, euh, da war a def en sorte que kàddu googu nekk dëgg mu ne beneen bi am na benn kilifa bu mag mu ne bés boo joxee nga ni lii laa bëgg def nga xam ni boo ko defee dinga nga loru nee na kilifa boobu nee na def ko te loru parce que xas nga ko ba génnee moo tax ñu wax ni que. en fait boo xasee boo wax rek jaam nga boo waxagul nag sang nga et loolu mooy y a des politiques qui toujours euh, qui sont toujours restés sur des principes et on peut en citer euh, kàddu gi ak message bi c'est d'abord vous vous remercier ci invitation bi ak euh, ak ak waxtaan beeg leeral bi parce que ça m'a permis un peu aussi de me ressouvenir de beaucoup de choses yu ma tegoon ci ci ci beneen message bi c'est de dire que Euh, soyons conscients que ñun ñëpp Sénégal ñoo ko moom et comme je le dis lu ñëpp bokk d'abord kenn moomu ko mais aussi lu ñëpp bokk ñëpp ko moom ça c'est un deuxièmement ñu travailler à ce que bu ëllëgee les générations futures bañ ñu wax accam ça c'est le second principe et la troisième des choses ñu mën a différencier les divergences politiques des divergences personnelles et loolu bu ñu fa yeggee sera tous euh, pour un et, et, un dans le nous et nous ferons en sorte que le nous puisse souvent l'emporter sur le jeu parce que c'est le nous qui va nous permettre ensemble de faire des choses ensemble, de réussir ensemble pour que le Sénégal diem kanam. Moi, c'était le message et terminer aussi par remercier euh, monsieur Amadou euh, Samakalu CRRB et nous voyons aussi euh, son engagement et ñu ngi ko ci gën a soññ di ko ci gën a encourager di wax ni il nous aide aussi à à avoir les pieds sur terre et à savoir que nous ne faisons peut-être pas le, le, le mauvais choix.